UCAB FM, la radio citoyenne. UCAB FM, nous fii si UCAB FM. Pape Serra Mbaye. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmad Bamba ñu ngi fii ci ndaam Daaru Alimul Xabiir xibaaru digg bëccëg bi. la gën a fes ci xibaar yi benn pàcc ci transporteur yi tey ji xëy banque seen opa yoxoon ne nag lànk naanu dañu sóobu ci àpp gerew lay sabal sa mooy jafe-jafe ñu koy dund ci tali bi loole nag naka la ñu ko dundee ni tey ji garage Dakar bi ci Touba foofee nag ñu nemmee ko rek ne ñu bëri bëri ci chauffeur si lànk nanu rek taxawal seen ay oto ginnaaw rek kàddu yi nga xam ne kii di njiit li di ka yëkkatoon na ko ne nag ñoom soo wuñ ci ay gerew seetlu ba di nag tey ji daanaka nag génn dëkk bi doon lu jafe fekk nag ca wet ga dëkk bi moom lu oto yi nga xam ne ko ñoom ñoo fiy liggéey amul genn gàll gàllankoor goo xam ne am na ci loole nag ñenn sax ci Mbàkke Tubaay tey dañoo xëyee wàcceem alxuraan waaye nag terewul ñenn di wér seen upp liggéey naka dañu ko dundee incha allah rabbi danañ ci ubbi xët wu yaatu ci li nga xam ne kon moo di jotaay ak xibaar yi wax ci wàllu wàccaayu màggalu ko Poroxaan Serigne Bassirou Mbàkke Poroxaan delsi na ci wàllu wàccaay fañ ca toll courant baak lépp lu jëm na ci wàllu taxawaay ba kàddu yëkkati na ko ca danañ dikk gën ko yaatal ba tey rek danañu àddu jëmee ci benn ko taxawaay diggante photographe ak appareil yi naka la liggéey bi mel ndax nag Paris xew yi yàqul liggéey ma photographe loolee nag Moustapha Ndiaye jot na cee gisante ak ñenn danañ ko gën a yaatal àllarba bu jot ni nu ko baaxoo kër docteur Guèye li gën a fës yéene kaay na ma këmal jotaay bi ne suuti di kenn ci faram fàcce gi ndeem soob na sunu borom. yi fii si UCAB FM Pape Cheikh Pape Saer Mbaye ci àddukaay gi machine ba Cheikh ba yéen askan ci déglu bi rajo UCAB 103.5 di téeméer ak ñett yu tombal juróom ngeen koy déglu ci bande FM bi internet bi ñetti w point a2itv point net wala ñetti euh, ak fan ci weeru wala weeru tubaab di weeru janvier atum 2022 ñaar fukk ak juróomi fan euh, ci weeru wolof di maamu koor ci atum ñeent téeméer ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi waxtu yi jamono ji ñu ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci bëccëg fanweer ak ñaari simili moo bootu ci kawam xibaaru digg bëccëg bi. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndaam daaru aalimul xabiir xibaaru digg bëccëg gi danu koy doore rek ni leen ko waxe woon sànq geraw bi nga xam ne benn pàcc ci transporteurs yi tey ji xëyee nañu ko ngir rek jafe-jafe yu ne moom la ñuy dund ci tali bi loolu nag tax Alassane Ndoye ñamu àndal ne dañuy bank seen yoxo loolu nag ni ki fan yi kii di Idi Kam mi jiite regroupement chauffeur transporteurs yi ci Touba yëkkatoon ay kàddu ne nag gerawul gerawluwul te wootewul ab geraw daanaka loolee terewul tey jii ci garage Dakar bi ci Touba foofee nag oto yu bëri taxaw la ñu def client yu bëri nekk ci ak jaaxle génn dëkk bi doon lu jafe lool ndax nag ñu bëri bari ci ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di sëfër si lànk la ñu def tey seen ay oto Pape Diagne kenn la si ñi nga xam ne ko ñoo leen jiite kàddu yi nga xam ne ko njëkkati na ko ci lan moo tax ñoom ñu jël dogal boobu boobule ngir ànd ci woote bu Alsane Ndoye woote na ko Pape Diagne ñu àndoo teewlu ko. man maay Pape secrétaire général syndicat des travailleurs du transport interurbain au Sénégal waaw bokk ci benn intersyndical